The am na solo ah dafa dañ ne set sel la ne set la ne sel état ne sangu formalité la mais bu ci nekk il faut nga dégg ko ci dimension yi lan affecté nan la affecté xel nan la affecté ruux laab lan la yéene la mais ban yéene la laab mooy nga am yéenewu lépp loo war a séq moo xam sa diggante ak sa bopp la moo xam sa diggante ak say moroom la moo xam sa diggante ak sa boroom la doo jóg ci di ko bëgg a gën a defar muy gën bis bu nekk loolu mooy laab loolu mooy laab boo ko boo ko jëlee ci cadre yaram mooy nga fexe ba lépp loo xam ni war nga ko jëfandikoo mu wër la jëriñ nga fexe ba jëfandikoo ko ca anam ba nga xam ni moo lay gën a julal njëriñ moo xam ci sa sangu la moo xam ci sa lekk la moo xam ci sa naan la moo xam ci sa dox la sa doxin nag yeneen yi ci des yépp loolu mooy laab bu fekkee ci wàllu xel la je fexé optimiser sa performance mentale de façon à ce que éléments élément retardent retarder sa capacité de réflexion ak sa capacité d'analyse nga ce ko loolu moy ci cadre xel bien sûr légui nak ci cadre moy mais nañ cadre internet ADSL amna. ak fibre optique lolay laab ci di ci ci niveau ruux te moy nga fexé ba connexion bi am digënté ruux bi ak borom bi jamono bu nek muy gën di clair di gën di nek di gëna a gaaw nga xamni yalla yàlla lu mu soxla ci nit ki à l'instant T nit ki jot na ci ba koy jëfee loolu mooy laab set bu ñu nee jikko la mais yomb na mais est-ce que fañ ko war a déggee lañ koy déggee ndax bu ñu nee set ko la set mooy nga fexe ba lépp loo xam ni war na mën a gêner te muy jóge ci yow nga daw ko moo xam xet gooy am la moo xam melokaan booy am la moo xam waxin booy utiliser la moo xam sax xalaatin booy am wala sax am noo mel xaw koo xeeb yii yëpp ci foofu lay dugg te mooy ngay dox ci mbedd bi nit romb la ne ah kii ma gis léegi de nangam bokkul ci set wala nga taxaw solo benn façon bi ne diw de ah, ay ay sagar rek lay solo bokkul ci set ainsi de suite moo tax gis nga ku respecté sa bopp il faut nga am melokaan ba ca war mës naa ko wax sama benn wëllëre ku baax mu may naan ah man de yenn yenn colli yi man farataalu ma ko ndax dama jàpp ne daf may tardeel mu ne ko ah ku nekk ak décision bi nga jël ci sa wàll ma ne ko waaye da ngay bàyyi xel ne ci jamono bi ñu nekk mu ne ah, ma ne ko missionnaire boo gis li ko war mooy mu am contenu. continuer xam-xam bi war ci moom waaye mu mu am apparence bi bu mu war a àndal itam lan moo tax dañ nekk ci jamono joo xam ni koo gis ñoo ngi koy àtte ci apparence am balaa dara ku ñuy àtte ci sa apparence nag boo meloon ni nga war a mel joxuñ la sa cër dugal nga nit safara loolu bokkul ci set moo tax ku respecté sa bopp respecté say moroom respecté sa boroom solul na nga war a solo loolu exemple la ci mais cas yi bëri nañ sell mooy lan sell état la bu ñu nee sell état la nag et pourtant moo gën a complexe ci yi ñuy tudd lan moo tax xam nga góor gi ñoo ngi tegoon fan yi extrait fi muy naan nit bu ñagee boppam ba benn distraction dootu ko fekk ci digganteem ak boroomam mais loolooy sell sauf ko nag njag gi nekkatul njag goo xam ne nit ka koy def ndax nit lu mu defal boppam da koy niru te kon day matadi seetlu mooy nga àgg sa diggante ak sa boroom mu fonk la façon fonkeel goo xam ne moo lay ñagal boppam te kon waxuma la luy jóge ci biti di la fa fekke si pour gaañ la waaye li nekk ci biir sax war laa gaañ génn na looloo tax ci li ñu posé sànq sangu set sangu farata lan mo wara meuna tax bo séq ak sa soxna ba pare nga def ko et pourtant oustaz ça wax na ko doye di la doye de mo wuté mani ak tour ndox ndax tour ndox da ngay xey saf ko dem defé ko bo nga parce que c'est un besoin un besoin basique un besoin très terre à terre mais c'est un besoin kon nak dinañ la ko nangul waaye Ou xamni c'est optionnel and ak xalaatin géeg jikko yeeg doyode gi mu andal yeb mais bu dara xana nga gene lool ci sa système mais nak bu ci nit ki agge fam ci war mais loolu sax yalla dootu ko considérer comme sobe lan motax li wara nek fofu yeb ci bir système bi yeb étudier nako ko nako na nako defar na clinique bi Mouhamed di tudd sànq sax man fofu lay dugalaale sama question. parce que seetlu na indi nga auscultation bi indi nga opération bi indi nga post opération bi waaye dafa am détail bu la rëcc te mooy dëj ga parce que opération boobu bu réussir dëj ciy tegu dëju doomu aadama waaye nit doo a léegi doomu aadama jooja ba mu àggee gis dëjëm lu mu def loolooy sama question ci seetlu googu ni ñu ko waxee bu ci nit ki sonné nam ci wara a am ci lam ci wara am koy garantiral yooyu ce qui fait que à partir de là laabam day changer dimension setam day changer dimension sangom day changer dimension mais balaa ñoo ci dimension supérieure sangu jël dimension basique bi ba paré formalité lan moo tax lan moo tax parce que seet ajuwul ci sangu tax ak tilim bokkul tax ak tilim bokkuñu gis nga li tax bu la neexee faxas mu dem bu la neexee xaw a fomp mu dem waaye li tilim foog nga raggu li tilim il faut nga raggu wax ji nag léegi lenn la lan moo taxoon pourtant sëñ Cheikh wax na ko newoon na mag ñi kenn gënu leen a set et pourtant foo leen fekk ndox rek la ñuy jëfandikoo mais wax mooy foofu gisa problème bi du ñaata saabu nga am problème bi du ñaata heure ngay sangu problème bi du lan nga ciy daj problème bi mooy est-ce la war a jiitu sangu ga moo nga fa parce que sangu bu jaar yoon honnêteté moo koy def dëgg moo koy def xol xol bu bu nangul bopam def mais lan fi waxoon neewoon na fi dañoo nek ci jamono jo xamni gor yang ko xamé der gu tax gor yang ko xamé der gu tax ndax fu mu toll na fi di tax di di tax ci deram lu mu deful waye gor gu xam bopam talul nek fi di raxas ak fomp day doxi soxlaam ndax xam na ni dëggoon ak boppam dëggoon ak boroomam kon nag ak lu mënti xew ngelaw dana ñëw faxas lépp mu doxi soxlaam waaye nag foo fekk saay-saay foo fekk naafiq mu ngi dëgg ci sangu lan moo tax deram ci boppam moo tilim ndax du def lu jaar yoon sangu lu jaar a dégg la waaye lan moo tax ñu ne formalité la lan moo tax ñu ne formalité la parce que ki ci àgg fam ca war a àgg soxlaatu ko mën na toog téeméeri at yu mu laalul sax ndox et pourtant du feeñ ci yaramam lan moo tax gis nga njag gi ñu tudd sànq moo tax gis nga bu yàlla assuré loolu ba pare xam nga bu ñu nee armure métal mën na tax waaye du tere bu ñu la dóoree bal mu téye ko. c'est le même principe gis nga foofu li tax sangu nekk formalité te mooy da ngay beesal rek du farata da ngay beesal rek pour boo taxawee sa kanamu borom gën a am jëmm ju jaadu paasewul li gis nga yii yëpp boo ko boolee pureté bi ñuy tudd fii lay débuté ku matalii ci nga doogee war a lijjanti lu jëm ci cadre pureté waaye ku ko matalul nag am nga beneen farata passé wul li motax ah sant yalla <laughs> sant yalla bañu yalla maye kilifa boo xamni ni nañu li jangal nañu lenen ak yenen feneen bañu amé kilifa goo xamni ba nga xamul mo la xamal ba nga mënul mo la defal ba nga baxul mo la defar nag sant yàlla ah yàlla yàlla di xeb di dolli negam sax lu yàlla xeb xeeb dolli doy nañu ah moo dafa am koo xam ne xam nga tonton Serigne ñu ngi koy tudd léegi xanaa xamoon ni loolu sax daf ñu ci yar maa ngi fàttaliku benn bés yàgg na mu woo ñuy ñu sept heures du matin boobu ndeysaan ñoo ngi nekk lu ndaw bëgg nelaw lool ñu ñëw doye wuñu dara lu ndékki xam nga rek ñu def ko yëfi tukkuleur xaw ci ëppal xaw ci xër ñu dem ñu pare mu woote def remarque yi ni lii jaaduwul ci borom mission gis nga ki lay yar ba ca foofu xam nga ni bokkul ak ñi ci des c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire moo tax euh, am na koo xam ni nit ñi delloo ko njukkal saaga ko la ndax ki mu amal affaire du ñi du ñi nga xam ni dañuy xëy fii dee nekk poussière kenn dootu leen fàttaliku mooy koo xam ni fu mu toll yàlla nga koy bàyyi xel yàlla nga koy delloo njukkal ndax li mu ko liggéeyal ci kaw suuf mais kooku ku ko bëgg a def moroom da ngaa moo tax nag ah dañuy sant yàlla sant yàlla ci moom ñu bañee chance ñu mën a fekkee ëtt gi ba ñu mayee chance ñu mën a fekkee ku toll nii <laughs> billaahi sama góor gi xamoo leen ko dellul kilifa ñaar la ko yàlla di booleel njaboot ak nattu bu yàlla nara def ñu nar koo jege doon nattu waxuma la yàlla na ñu fa yàlla na ñu effacé ci bépp registre bu mu am képp nag ku taxawati ci kanamam bëgg ko mat obstacle billaahi dinañ la wan yàlla am na yeneen mbugal yu gën a tàng safara ku yaakaar yaakaare nag ay waxe dof la yaa xam ku yaakaar ay wax ay la yaa xam waaye ñun ki ñu war a jaral jaral nañu ba pare ah ni ko Habib waxee sànq am na koo xam ni ku siq ak moom di nga sant yàlla waaye foog nga def attention ndax am na ko xam xeyna waxam du dañ waaye foog nga xamé fan la wax ji nek être ak fan la wax ji nekkee devenir rawati ne bu fekke ci sa wàll lay wax kon nga am na ko xam bu la nee gor nga itam bu ci sa xel dal xoolal ni war nga dooni gor war nga mati gor nga boo ko yamalee tey rek juum ah kàddu yëpp na ba pare xol yi fees na ah noonu la ko yàlla dogale ah kon ñu ñaanalante ba beneen incha allah ñu def fatiha ñetti quraish falaqi ak na salaatul fatih ñu yeewee ko ba beneen yoon incha allah bismillah